ci euh, Abdoul Aziz Diop euh, ànd ak groupe voyage bi nga xam ne El Hadj Ndiasse ñu ngi moo ko dirigé ñu jógee Thiès ànd ak nag ay kilifa yu bari doon kenn a ngi ni toog mu El Hadj Moustapha Diop président chambre de commerce ànd ak mbooloo mu takku cent cinquante personnes ñi jógee Dakar ñi jógee Suisse ñi jógee France ñi jógee fu nekk at bu ne nag fukki at ñaar ci ren ñu baaxoo di ñëw su weeru koor tollee fii pour ziyaare si wàcc nag Casablanca fii ñu nekk mooy mosquée Hassan II mooy jumaa ju yéeme jooju nga xam ni adduna bi yëpp bëgg nañ ko découvrir nga xam ni fii ñu taxaw ñu ngi ci biir géej gi roi Hassan II di doomu roi Mohammed V parce que roi Mohammed V mooy waajuram daanaka mooy moom la wuutu ki fi nekk tey Mohammed VI di doomam wuutu ko roi Hassan II nag moo fi bàyyi liggéey bu mag bi 1992 lañ ko inauguré groupe bu ñu naan Bouygues benn groupe français moo ko tabax mu nekk chef d'œuvre waaye nekk loo xam ne ci kéemtaanu sunu borom bi la ndax jumaa ji tey mën naa ni presque benn la ci àdduna bi mi ngi nekk ci digg géej gi yàlla def gis nga tey ñu fi jullee gee naa fi la fi mais fu ne la nit ñi jógee ci biir Maroc pour di fi jullee mais jumaa ji li ci yéeme mooy eh, roi Hassan II bi mu koy tabax amoon na moyen amoon na barke bi amoon na pour mën ko tabaxal boppam mais dafa bëggoon sàkku yiw pour ñëpp barkeelu ci mu ni bépp doomu marocain na nga joxe lu mu gàtt gàtt ñaari diram deux diram nag soo ko vingt franc wala cent vingt cinq franc mën nañ ñi tey donc fii ñu taxaw jumaa ji bépp doomu Maroc ak ku doomu Maroc sax dugal na ci xalalam dugal na ci yéeneem ba nga xam ne yiw yi ñuy màng tey lépp luñ fi jaamu yàlla dina fekk ka sos muy roi Hassan II waaye dina fekk jaamu ay maamam ak ay waajuram ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ci la meññeekoo mais li ci gën a yéeme mooy jumaa ji soo duggee architecture bi Maroc xam nga dëkku aar la dëkku fam tradition culturelle mosaïque li ngay gis région bu ne ak lay say baax baax da nga ñëw indi barkeelu ci moo tax mu nekk dafa mel ni genre cocktail la waaye soo xoolee dafa am harmonie parce que yàlla si boppam moo ni dama rafet bëgg lu rafet. soo gisee l'islam c'est la religion de la beauté jàkka ji soo fa duggee da ngay bég bégu biir ak bégu biti ni mu taaroo ci biti noon la taaroo sa loolu mooy wane rek taaroo l'islam wane dayoo l'islam ñi nga ànd ak si Alaaji Ndongo Fall bokk ci magu yoonwi wi. mbay itam yow di la sant ndax daaw ba ren vraiment rëccuwuñu li ñu doon ànd ak Thiès 24 ndax fi ñu toll waxuma la fii mais ku fi xam na li fi xew ndax chaque jour lépp luñ fi taataane ci xabaar maanaam mu nekk loo xam dafa nekk ci wàllu information ci wàllu découverte ci wàllu culture yaa ngi koy jàllale ba ñëpp ñii ci lañ jaar pour ñëw ñii tey seen xel yéene ñëw képp ku fi bëgg a ñëw daal fii daal yàlla bu mu ump kenn ci jàmm ak salaam liñ fi ñaamu yàlla tamit yàlla na ko yàlla nangu ñañu bàyyi Sénégal muy Sénégal ak Maroc dafa am alaaka xam nga dëkk yi amul sax visa loolu dafay wane diggante ñaari yi diggante bu sel bi am moo tax suñu ñëwee fii dafa mel ni ñu suñu dëkk Maroc suñu ñëwee Sénégal la même chose gis nga jumaa ja nga xam ne tey mooy grande mosquée 1964 ou 65 la ko roi Hassan II tabaxoon alaaji Abdou Aziz Malick jiite ko sa loolu dama koy faral di wax ne l'islam ki am cër mooy maye cër boobu maam Serigne Fallou Mbacké bokkoon na ci ñi mag ci xalifa yi mais bi ko président Senghor nga xam ni catholique la woon di ko laaj jumaa ji ñu tabax muy patrimoine pour national léegi kan moo ko war a jiite mu ni ko jumaa ji de murid du ko jiite tijaan du ko jiite xaadir du ko jiite laayeen du ko jiite ki koy jiite nag nitu yàlla le doon nitu yàlla nag boobu nag gisuma ku ci génn alaaji ab ndax tey ñoo bokk li mu rafetal lool nekk borom xam-xam ba pare di yeewoo Dakar am fa njaboot xam nga yooyu yëpp ay histoire la donc loolu mu roi Assane 2 tabax en 64 ou 65 gis nga li mu defaat fii donc roi Assane 2 yàlla rek moo ko mën a fay xanaa loolu daal la ñuy wax ci tënk donte lee xëy na alaaji Moustapha ak alaaji Ndongo nga xam ne ñoom tamit ci magu yoon wi la ñu yàgg génn am taxawaay bu rafet tamit ñoom jombul ñu am ci kàddu